dañ koy daal di jeexale euh, ak ki nga xamante ni moo di sa waa ji muy député Abdou Bara Dolly Mbacké moom nag euh, moom Amadou Ba mi fi nekkoon premier ministre ci jamonoy Macky sàll dem na seeti ko ngir rek waxtaan ak euh, safonte jëm rek ci élection législative anticipée yi nga xamante ne ni war na am di 17 novembre bi di ñëw ngir ñu booloo doon benn moom nag nangul na ko li ni mel. damaa xamul nag fii si diggante bi ndax changement dina amam déet ji sa waa ji daal moom chaque jour rek fi muy fël li Assane wax rek moom saay su xëyee wax rek nañu jàpp ne li mu wax loolu moom moo am ba gis leneen du koy dégg. waaw ba de wax dëgg fa yàlla su ma nekkoon amadu Ba moom du ma nangu. ah lu tax. waaw ah, mais munu ma nangu man eh, am ngoro goo xamante ni damay ngoro nit. mu hmm. jekki jekki ba ma fa. dem wëndeelu ji ba ñëpp ne ko nobbuma la mu dellu siwaat ku mu dem na ko nob naa nga ne ko nobbuma la mu dem ba jaaxle bëgg a dellu siwaat daal di ñëwaat ci yow. Ah, parce que daa dem ba xam fekk ne yéen a àndoon mun a yëkkati na xolam bii jox la ko. Ah, léppam la la jox ndax say qualité lii ak lii ak lii. olof Ndiaye la nga doon yootu jotoo ko mu bala fa. Ah. wëri feneen. fu mu yaakaar ni fa la ay mbiram mën a doxee. Mm. mu wër a wër a wër a wër ba dajal. Mm. gis ni fenn baaxut mu taxaw def déclaration ne day demal boppam dina yóbbu vendredi quinze million déposé ñu ne waay mu teeree ca Amadou man su ma doon Amadou ba dama naan ko déedéet. mais est-ce que utiliser wul li olof Ndiaye di wax ne. na koy dem ba xamatoo foo jëm da ngay dellu. waaw fa nga jógee woon non moom pour mu dellu fu mu jóge dafa baax parce que mu jógee bari <laughs> fu mu jógee fan la. jógewul ci Amadou Ly fu mu jóge <laughs> moom pour mu dellu fi mu jógee dana koo de <laughs> mu dellu fi mu dana compliqué de ah, moom eh? daal moo ngi nii rek mbàkke li ñu ah? def de moom rek moo ko sañ waaw ah. donc mhm. moom dañu war a xam ni actuellement mhm. wax dëgg fa yàlla Amadou moom Euh, gëm naa ni nag bu gars yi defaree ay liste peut-être sax mën naa mer parce que yaakaaruma la mu doon peesee ti mu peesee ko ci biir euh, euh, kii ba parce que tamit wax dëgg fa yàlla mënut a peese li mu daan peese parce que bu doon toog na ci Amadou Ba ba nëga ni peut-être que ni dina am position mën na am position bu baax mën na kaas am position bu baax mais Amadou Ba xam na ni kii moom àndut àndut ak moom bu ñëwee dafa wëndeelu ba sonn rek ñàkk pexe ak bëgg a delluwaat assemblée. fëgg na ay bunt bunt yu ubbeekuwul. Mhm. jaar na ay porte yoo xamante ni ubbeekul mu ne naa dellu fa ma jóge woon. parce que tamit dugal ay quinze millions kii bàyyi Amadou dugalal la 15 millions boole la ci kii bi moo tane. waaw moom kon ay calcul lay def. waaw du calcul quinze millions yooyu mu waxoon xam naa da koo calculé waat ne quinze millions yi boo ko fi perte mu subale naa dem fexe bootu ci Amadou bañ joxe quinze millions parce que dem joxe quinze millions mu wóor na ni 15 millions yi da koy joxe ci baali faro moom mook loo sànnee yam rek. mais ce que du ko yàkkal itam. du yàggal lan. du ko gën a yàkkal moom mii. ah moom day politique boo xamul lu koy yàqal mu toll ni moom xamul ni façon politique am bii muy politique jeex na moom xamu ko na. parce que yow yow bu tayee nga wax lii bu subaa nga. wax lii finalement est-ce que nit ñi tamit dinañ la joxati nopp. est-ce que moom wut na nit ñu jox ko nopp parce que bu la waxee dara balaa ngay dégg loolu muy wax leneen. ah mais alaaji kuy politique ku ne kay bëgg ñu jox la nopp jox la nopp kay mooy boo waxee ñu déglu la xam sa programme pour mën la dem voter. moom mii sëñ Abdou Bara Dolly. waaw programme am ba mooy programme nan mooy kii yow daal la. Ah. waaw moom daal wër naa wër a wër a wër a wër a ba gisut. mu ñëwaat ci Amadou bi bañut dara Amadou moom ku yow tuddee ko xëri rek xërim bañut <laughs> Amadou moom mooy xëri. ay eh, mais dañuy politique rek. comme <laughs> Amadou moom mooy xëri. mi ngi waxtaan moom moom dara lu ñëw baax la. waaw wax dëgg fa yàlla xam nga politique bi nag ku ci nekk ak ni ngay doxee. Amadou moom taxawaayu xëri la taxawee moom. Hmm. waaw xëri bañut la ku ñëw baax na. pourtant Amadou am na lu muy bañ de. lan dégloo ko keroog. Amadou. ba mu ñëwee di wax. lu muy bañ. bi muy kii. lan la lu mu wax ne moom lay bañ. non waxuma ni day wax ne day bañ dara de ma ne xanaa dégluwoo ko boo ko xoolee xam ne bañkat la tamit bañ a tax mu génn. ci euh. APR niñ ko def kan la. waaw waaw comme que bañkat la comme yow yaa gis mbañkat googu waaye wax dëgg fa yàlla doom man bañkat googu nga wax moom gisuma ko. mbañkat moo tax mu mu mu créé bu yëfi boppam aw yoonu boppam balaa ñuy tas parti Macky di tas parti ba fekk na jël na yoonu boppam alaaj loolu moom doo ko bañal nañu waxante dëgg rek ay ca ñu tàggatoo comme waxtu bi xoj nañu. macha allah kon Amadou bañkat ñu ngi koy ñu ngi nuyu ñëpp di ziar di joxante di daje incha allah rabbi beneen altine. altine jàmm ci kàttanu borom. incha allah jërëjëf Mbengue waxtaan bi am na solo lool te neex na itam. Eh, di jaajëfal nag képp koo xam ne rek yaa ngi ñu doon bàyyi xel jamono ji eh, di jaajëfal Modou Diouf Abdou Top Abdoulaye jàlloo ak ki nga xamante ne ni mooy Serigne Fallou Goumbala jox leen nag dig daje beneen altine ci l' émission des émissions.